ci daloo gi ñu doon daloo autoroute Ila Touba tey jii ci alxames gi daanaka foofu feesoon dell ak nit ngir ñëwu bokk ci mbir moomu. boobu la projet bokk ci li gën a tax ñu gën a yembal dem bi ak dikki bi fii ci biir Touba ba tax na ci wàllu woowu bëri ci ay nit ñëw nañ fa rawatina kilifa diine yi nekk ci biir dëkk bi ak ñi jóge ci wàllu politique yi waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ku gi tamit teewoon nañ fa ku ci mel ne Cheikh Bara Dolly député ginnaaw daggub ruban bi ci teewaayu xalif général bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ak kii di président de la République Macky Sall ginnaaw ci loolu ci la njiitum mi daal di jubal ci fa nga xamante ni fa la amalee ndaje mooy discours am Macky Sall daal di rafetlu ànd bi muy ànd ak dëkk bii di Chine ci jàppale bi ñu koy jàppale ci yenn projet yi muy amal ci biir réew mi rawatina bii di Ila ñu defar ko lu toll ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ci ay milliards ñu def ko ci lu ci téeméer ak fukk ak juróomi kilomètre autoroute bi taxawoon ñu taxawal lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki liggéey njiitum réew mi daal di rafetlu ànd bi muy ànd ak kii di njiitum réew bu Chine ci li nga xamante ni moom lay jàppale Sénégal ci ñi gën a doxal la lii projet yu biir réew mi ci wàllu woowu njiitu réew mi daal di xamle ne lu toll ci juróom-benn poste de péage automatique dina am ci biir autorite boobu yu ubbeeku ci juróomi gox yu ci mel ni Thiès bambay Touba Xombol ak Diourbel ci wàllu woowu tamit kii di président de la république daal nay na yeesalaat njëbbalam ci kii di xalif général des Mourides ak tamit taxaw gi mu taxaw temm ngir daal di fësal liggéey yi nga xamante ni mi koy amal ci biir dëkk bi lu ci mel ne ci wàllu setalaat dëkk bi courant bi waaye tamit daa taxawal yeneen ni yoon yoo xamante ni dina tax dem bi ak dikk bi ci biir Touba gën a yemb.